ñu ngi nuyu kilifa yi fi teew yëpp tàmbalee ko ci kilifa diine yi fi nekk sëñ bi ñu ngi lay delloo sa wàccuwaay euh, jëmm ji tax ñu jox la cër bii tey mu Cheikhul Khadim jànguñu de mm-hmm. waaye liir nañ tuuti ci ay bayit mm-hmm. am na ñu jàngal ci Masaalikul Jinaan donc cër bii ñu la jox moom lañ lay xoole rek ak képp ku fi teew nag ak këru diine boo mën a bokk euh, madame le euh, ñu ngi lay delloo sa wàccuwaay cër yii la borom bi subhanahu wa taala dénk yàlla na yokk amiin amiin keneen ku la jox cër ku ne yàlla ko dénk moom rek moo koo jox keneen yoru qul illahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha biyadikal khayru di wat force am nag ki tuxriju leelu wan nahaar wa tuxriju nahaar fi lay kooku moo yore cër yi moo koy joxe du kenn ku nekk ci kaw suuf ku koy dénk nit dañu delloo suñu bopp ci borom bi subhanahu wa taala Oustaz Ibrahima mm-hmm. euh, li nga wax mooy nekk mm-hmm. fii buñ fi tàntee mën naa fee toog. Mhm. ba ma juddoo ba léegi génn mhm. ma fi. ba juddoo laa ba tey génn ma fi. fukki at laa fi yal daara ci mbedd yi. suñu yaay yaa ngi ñuy toog. Mhm. kër gu ne ya daan togg añ xam na fukki at. kër bàyyi ni nii boo tourné. ñu dénk ko moog Thierno Abdoul Sall. aw ma woon ñibbi suñu kër te aw ma entrée en sixième. boole daara ji ak di ko yalwaan. te ku xam Thierno Abdoul sa Oustaz Faye kenn du la ko jàng. tënku ci diggante kër gi ak si Saliou Touré mi mbedd bi lépp di diine kese. kon si Ibrahima fi mu jox si tey fi mu war a jox euh, dañoo xaw a sonn ndax daaka ba lañ jógee torox torox lu ñu woon am lu ñu fa jànge nag mooy li sëñ bi wax ni fu ñu dem toog ci jataay nañ ko jottali mooy waxam moo ko wax de waxuma ko te télé bi foog naa suyoo nee na Mbàkke nee na fu ñu dem nañu wax nit ñi ni lu waay jàpp lu dul dëgg dëgg ak gën a wóor lii da lañ jox ren mi euh, leçon ci daaka ñu ngi nii di waral pour jëm kokki nii nii soxna si da nga wax lu am solo mooy nit ñi wax est-ce que ragal nañu yàlla. Mm-hmm. est-ce que xam nañu ne yàlla moo yor seen lépp. Mm-hmm. man damay politique. Mm-hmm. comme yéen comme keneen. sama dara dara dara lu war a nekk ci man jo jokkuwul ci Idriss Seck bi ma àndal. déedéet. day jaar ci moom rek ñëw ci man waaye yàlla ma ko keneen ku mu mën a doon yoralu ma añ yoralu ma ndékk yoralu ma nen yàlla moo ko yor moo tax jomb ma wax kenn dëgg te jomb ma it déglu dëggu kenn. yàlla kese boo fi nekk leneen new fi Mbàkke ñu ngi leen di sant bu baax a baax a baax a li nga wax nit ci monsieur le maire ci taalibe gi dama koy wax fu ma toog bu ko defee moo ko war moo war ku ne bu ko deful it moom moo la war mooy euh, ñun ñëpp dañuy rendre compte ëllëg xam nga Sénégal dañuy def erreur naan min politiciens yeeg di wax képp ku jiite laa wax dinga nga rendre compte yéen ñu yor tarixa yeeg ñun ñu yor politique bi ñu yor ku dul rendre compte amul qu'on arrête d'indexer les gens que chacun se renvoie sa propre responsabilité loolu yàlla moo ko wax du ñu man su ma déggee nit di ngaa ñu naan waaw politicien dama naan kii xamul li wax moom mi jiite atelier mécanicien mos a bu ëllëgee dina rendre compte macha loolu la ñu bëgg a nit ñi ñu delloo seen bopp ci yàlla soxna si dafa wax lu am solo man de ci daara laa yoroon wallahi lazim samay diplôme français dañ koy wañ wàññi bu dee am na dafa am benn euh, jàngalekat alxuraan bu mag li may wax ñii xam nañ ko boo tapé ci YouTube bi di nga ko gis il est décédé à quatre-vingt-treize ans il a eu quatorze doctorats il fut l'un des premiers imams de la grande mosquée de Paris su ma demee monsieur le maire xam ne dem Paris ji mosquée des frères musulmans mu ne quatorze doctorats yi benn moo ci am solo mooy bi mu taree alxuraanu karim ñu jox ko yeneen yëpp ay ay fuuti mais soxna suñu dëkk bi ñu nekk ñan ñooy suñu référence c'est-à-dire un peuple ne s'égare pas comme ça parce que Allah il dit dans le Coran euh, celui que je guide nul ne peut yàlla moo ko ku ma sàmmal sama bopp. kenn mënu laa jàddu loolu mooy li am kon est-ce yàlla mu ñu sàmmal boppam ñun wala dafa ñoo bàyyi suñu bopp. loolu tam lu jar a xool la yàlla li mu ko dénk rek lay téye. boo ko dénkee cinquante pour cent jël cinquante pour cent dénk maamam yi mu téye la cinquante pour cent. boo ko dénkee quatre-vingt mu téye la quatre-vingt boo ko dénkee cent pour cent day mat sëkk. mu téye ñun ñan la ñu dénk suñu bopp. qui sont nos références dans aucun livre dugaluñ ko ci école yi di jàngale Cheikhul Khadim amul ñan la ñuy jàngal on nous apprend Platon on nous apprend d'autres figures yoo xam ne non même pas les mêmes réalités waxuma sax croyance mais les mêmes réalités socio socioculturelles bokkuñu ko ñooñu la ñuy jàngal donc ce pays là ñen ñooy référence man damay nekk ci milieu politique mais su may jël référence ci dëkk bi damay cité ñoo xam ne bokkuma ak ñoom parti ñu jigéen pour wax ne bu dee référence ma bi ñu fi indi soxna sa américain soos mu sol robb na ci dëkk bi di jaagar jaagari ñu àll àlluwa jàng ci école kii ba pare yaroo ci këru diine yi ñu ngi fi soxna jaara kan lañ ko jàngal boo nekkul ci yenn cheikhul xadim bi xëy na duñ la ko jàngal te ñooñu ñoy suñu référence ñooñu nag bu ñu leen defee référence am na ci loo xamante ni duñu ci réer mais ña ñu def référence ca la ñu nekk ñun ci loolu la ñu nekk nous nos références au Sénégal ñun ñuy jàngal mooy ñi ñuy gis Europe ñi ñuy génnee ci télé moo tax ce pays la peut-être de conf de de ni mu mel nii ci bind melul ni Europe mais ci jikko ñoom la ñu nirool loolu mooy liy dëgg nous sommes des blancs colorés suñu ay gëm-gëm gëm-gëmu tubaab la ci lool la ñu nekk dëkk bi rafetul mais ni ñuy doxee boo demee Europe noonu la nit ñuy doxee pour un pays qui se dit quatre-vingt-quinze pour cent musulmans ba pare suñu toogee des fois sëñ bi li may wax Mbàkke dama ni yéen in nekku leen fii parce que yoon bi tey bu ñu toogoon nii nan la yaay Cheikhul Khadim dañuy nax suñu bopp parce que yoon bi moomuloo ko dafa am cër boo ciy dox donc bu ñu jàkkaarloog yow dañuy xool suñu aqulaay taala boo tegoo ci li Cheikhul Khadim wax ñu ànd ci ak yow boo tegoo ci leneen ñu teg tegle fi seetu ko ànd ak moom bu ñu ko jombee wax moom mi dëgg rek man duma dama lay jomb wax dëgg jomb ko wax keneen ku fi nekk yàlla rek moo fi nekk cheikhul xadim grade bi mu am ci xaadim rasul boobu kam ko liggéeyal yàlla ko jox cër bu ñu defoon cheikhul xadim référence tënku ci masaaliku jinaan lim ci wax les itinéraires du paradis tey du ñu réer mais nous sommes complètement égarés te Allah nous a avertis dans des sourates très claires iza zulzilatil ardu zilzalaha wa axrajatil arsala wa qala al insanu ma laha nous allons rendre compte un jour calomnie mensonge euh, ju doy waar la ñuy waxal suñu biir quel que soit le bord bu ñu appartenir sérobacry bu baax bi dafa ni boo ma dénkee sa ndaw ma téel la sa mag ku dénk sérobacry sa ndaw mu dénku Seydi Hadji Malick mu dénku Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu teg la ci mu mustaqiim boo lëggee doo jaaxle nañu delloo suñu bopp Cheikh sëñ Cheikh Diagne ne woon na tant que jamono tolluñu foo xam ni le ministre le maire le député la président de la république mënul génn bureau am jiite jàkka ji Sénégal doxagul et nous tendons vers est-ce que ñu ngi tendre vers loolu sëñ bi yàlla na yàlla sàmm leen dama daan wax al amin ma ne ko comme dañu seen i allahuma la ñu yaakaar nañ leen ñaanal gudd fan mais it buñ leen jomb fàttali li nga xam ne ñoo ko bokk mooy téere bi ndax téere bi it moomuloo ko cheikhul xadim mi nga yaakaar moomul alxuraan dafa ñëw feccali xëy na aw ndab te ndab boobu ku ci jokk rek waroo jomb xool sa moroom les yeux dans les yeux ne ko nekkoo ci lu yoon on se caresse dans le sens xaw ma lu a bi ci wax te on se dit la vérité yàlla yàlla sàmm lii la sëñ bi wax ren ku dem daaka fa parce que man daje naa fa ak Macky Sall ñu daje pont bulum bu muy ñibbi si may dugg sama chauffeur yi nii bu fi toogoon wax la dañu dem daaka ba ñu lalal ñu basan parce que foofu euh, ngan gi fa gën a fort kirintinding la ñuy def teg la basan nga def direct nag ak kii bi am dara du la muur fa ngay fanaan ma tëdd nii sama chauffeur tëdd keneen ñu toog ba guddi ma jóg dem biir bi di wuti lu ñu lekk ñëw ñu tëdd ba ay bool une heure du matin ñu wa dagg course gi ma ne ko Modou yàlla mooy Karim de mun naa ma ne ko bàmbe la ngi nii gratis ma yëpp nga yor oto bi dawal xool fi ñu tëdd maa yow yàlla def ñu solo ndoolu weex tëdd ci kirinti ñun kese mu tiim ana sama ana sama bureau ana sama climatiseur fi yàlla kese yàlla yàlla sàmm